الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا رسول الله الصادق الوعد الامين اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه المجاهدين الغر الميامين حمله القران والسنه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله تعالى عنهم أجمعين آه، بك جلتي نجسنتي الله سبحانه وتعالى ممي الله wa تدي يكسنو قطن yelloo ci sant giñ ko war a sant ci xéwalam yi nga xam ne laa tuaddu wala tuxsa di ko sant ci xéwalam yi nga xam ne sunu bëggoon wàññi benn bi rek nu mu toll mënuñu ko wa in tauddu nicmat allahi laa tuxsuha waaye di nangu xéwal yëpp di wax ni xéwal yëpp ci moom la yàlla ci moom yàlla la bawoo moo xam mu jóge ci moom direct wala mu jaarale ko ci ay jaam ba mu yegsi ci ñun di ko wax ne lahu lhamdu fi l ula wal axira wa ilayhi turjaun di seede ne amul kenn ku nu war a jaamu ci dëgg jaamu ga jural njëriñ ñàkk jaamu ga jural lor ku dul yàlla di seede ne mooy yónni ndawam lu jubla tànnee fam ga xaritam ba muhammad ibn abdillah salawaatu rabbi wa salaamuhu alayh Eh, mbokk yi dellu siwaat nanu ci sunu programme al aqidatu awala eh, li jiitu moom mooy na pas-pasu nit ki wér ci yàlla subhaanahu wa ta'ala ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa ta'ala yàll na yàlla wéral sunu pas-pas sunuy jaamu yàlla mu bari mu néew yàll na nu yàlla jàppale ba lépp lu nuy def ñu def ko ngir yàlla dong waaye it yàlla nu jàppale ba ñu bañ a wuuteeg yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam eh, mbokk yi junjoon nañu ci sunu jotaay wi weesu tuuti rek ci xew-xew bi doxoon diggante eh, yonent yàlla nuuxin alayhi salaatu wa salaam ak mbokkam ya ak li waraloon yàlla yónni ko muy yeesalaat lii di tawxiid muy dellowaat nit ñi ci li nga xamante ne mooy wéetal yàlla subhaanahu wa taala nga xam ne daanaka jànkonte naag aw nitam façon jafe-jafe yu nekk li ko waral mooy dañoo nekk aw nit wu nekkoon ci mbaax ñu nekkoon ci wéetal yàlla ñu nekkoon ci diine bu leer naññ waaye dem seytaane di leen nax di leen nax di leen nax ba ñu far jaxase la nga xamante ne moom mooy quartier bi ñu jaxasee seen diine commencé di ci duggal bokkaale di jël li yàlla moom di ko jox ñeneen yàlla yónni yonent nuux moo tax li mu daj ciw nitam ab yonent mësu ko daj ci ay nitam nekk nag ñoom lu tolloog junni at yu manqué juróom fukk waaye ca mujj ga yàlla mu ne wa ma amana maahu illa qalil tuuti dong ñoo ko lan ñoo ko gëm tuddoon nañu yonent yàlla isa alayhi salaatu wassalaam ak ëppal gi nga xam ne moom la nit ñi ëppal ci moom keroog yowmul qiyaama yàlla dina ko taaj ña ko gëmoon ñëw taxaw yàlla wax ak moom ko a anta qulta linnaasi ittaxiduuni wa ummiya ilahayni min dunillah ndax yow isa yaa ne woon nit ñi nañ la jàppee yow ak sa yaay def leen ay yàlla isa ne ko subhaanaka sell ñeel na la yow yàlla maa yakunu li an aqula ma laysa li bi xaq du jaadu du yell ci may xëcc loo xamante ne du sama lan du sama cër waaye nag yow yaa xam kumpa lii ñu wax ne lii ñu wax nii su fekkee ne lu am la xam nga yow yàlla su fekkee ne amut xam nga yow borom bi subhaanahu wa taala kon ci noonu la ñuy ñëwee ci sunu téere di téere bu ama am solo boobee di usulu salaasa di jàngale li nga xamante ne moo aju ci wàllu pas di jàngale li nga xamante ne moom mooy tawxid ki ko taalif di Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla bindal yool ci téere bu ndaw bi nga xamante ne ci ay kaddu waaye rëy lool ci maana ndax la mu làmboo di eh, li aju ci wàllu wéetal yàlla nimu mu ubbee téere bi moo di i'lam xamal yow jaam bi rahimaka allahu yàlla na yërmaande yàlla nekk ci yow kon ñaanal na la mu ne annahu lay kat bay dëgg mooy nanu yëg ñun ñépp ne yajibu alayna war na ci ñun su la neexee nga ne war na ci bépp jullit taallumu arba'i masail ñeenti masala yii moom mu jiital ko ñeenti masala yi mu jàng ko mune ne bi ci njëkk mooy al ilmu xam-xam xam ngeen ne façon xam-xam yi bari na mel ne dañ ko laaj nee ko waaw gan xam-xam nga ci jublu mu ne leen moo di maarifatu llahi wa maarifatu nabiyihi wa maarifatu diini l islam bil adilla mooy jullit bi war na góorgóorlu xam kuy boromam xam àq yi dox digganteem ak boromam te loolu moo di tawxid naka noonu tamit xam kuy yonentam alayhi salaatu wasalaam moom mi yàlla tànn defaral ko boppam ah ba pare ko ci jaami ba pare nee leen roy leen ko ah mu ne tamit wa maarifatu diini l islaam waaye bil adilla yii soo bëggee xam kuy sa borom yàlla soo bëggee xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa soo bëggee xam sa diine doo ko teg ci foog naa wala yaakaar naa wala gént naa walla nii la waroon demee wala nii eh, est ce que nekkul ne lii lañ ko war a defee déedéet mbokk yi diine dafa sew diine dafa lan dafa jara jox yitte lool moo tax mu ne bil adilla kon fexeel sa diine mbooleem seen li nga xamante ne mooy jaamu yàlla yi di pas-pas yi naka noonu tamit di wirdi di naka noonu di yi ngay jëf ci say cër lépp loo ciy def fexeel ba am firnde wu wér woo xamante ne ci ngay sukkandiku jëf ko waaw ndaxte soo ci amul firnde rek walla nga jaamoo yàlla loo xamante ne amoo ci dalil amoo ci cëslaay lu bawo ci alquran ak sunna loolu day tàbbil nit ki ci bida te xam ngeen ne bidaa baaxul ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla musal ci li nga xamante ne moom mooy bidaa eh, kon ñett mu sàkku ci ñun ñu góorgóorlu xam ko mooy xam sunu borom yàlla xam sunu yonent xam sunu diine kenn ku nekk ci ñun xam na ne su duggee ci bàmmeelam saa yuñ fa yeggee yàlla nañu yàlla defal sutura laaj laaj yi ñu la fay laaj mooy kuy sa borom kuy sa yonent lan mooy sa diine ah yii day wane ne kat ah, maanaam tomb la yoo xamante ne yu ama am solo la waaye mu ne ginnaaw bi ñu góorgóorloo ba xam ko bu ñu yem ci xam xam nga rek déedéet mu ne wal amali bihi nañ ko jëfe waaye sunu jëfee loolu ndax dañ koy jëfe rek toog déedéet wa daawatu ilayhi nañu woote jëme ci ah na nga woote jëme mooy xamal ko keneen ndax dañuy wax ne nit ñi dañoo yaakaar ne nayi mooy yore alal bañ a jàppale nit ñi déedéet waaye nay dëgg moom mooy yore loo xamante ne texey nit ñi la tey ëllëg yore alquran ak sunna gu leer nañ yore qaala allahu qaala rasuluhu yore loo xamante ne mooy tax jaam yi am jàmm ci seen bàmmeel ak ëllëg ci kanamu yàlla nga ne ko doññat ci sa poos toog ak moom di ko jëfe te doo ko won keneen doo ko jàngal keneen kon day wane ne daawa jëm ci yàlla lu ama am solo la mu ne ñeenteel bi as-sabru ala al fii fiihi mbir moomee di li aju ci tawxiid li aju ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li aju ci jaam bi diineem naka lay jaamoo yàlla mu ne yii fexel nga xam ko ginnaaw bi nga ko xamee nga jëfe ko ginnaaw bi nga ko jëfee nga xamal ko ñeneen waaye nga muñ ci lor yi la fay fekk li la ci fekk ndaxte xamal nit ñi kat loolu mën na jur ñu lor la yonent yi alayhimu salaatu wassalaam jaar nañ fi dara indiwu leen lu dul jàmmi jaam dara indiwu leen lu dul lii sëfe jaam dara indiwu leen lu dul li leen di jural jàmmi tey ak yiwi ëllëg waaye ànd ak loolu xeex nañ leen ànd ak loolu am na yonent yu ñu yu rey ànd ak loolu am na ñoo xam ne génnee nañ leen seen dëkk ànd ak loolu lor gu nekk daj nañ ko ci mbir ma yaakaar naa doy na ci firnde rek ah, bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demee Taif gaa yi gatandoo ko gatandugu ñaaw googee keroog ba malaaka bi yore wàllu xeer ak yooyu ñëw nee ko soo ma joxee ndigal sama borom yàlla moo ma yebal ma daa di tànc ñaari doj yi ci waa dëkk boobu ñu alku lan la ko wax da ko ne allahumma hdi qawmi fa innahum laa yaalamun yow yàlla yàlla nag ma jubal ci ñoom yàlla nag ma leen jubalal amaana yàlla génnee ci seeni ndigg ñoo xamante ne dañuy sujjootal yàlla dañoo xamul rek waaye suñu xamoon ne dëgg-dëgg yàllaa ma yónni suñu xamoon ne dëgg-dëgg seen jàmm su suñu xamoon ne dëgg-dëgg yiw dong laa leen indil kon duñ ma xeex kon loolu day wane ne yow mi taxaw tamit ngir woote jëme ci yàlla dinga ci dégg ay kàddu dinga ci dégg ay jafe-jafe moo tax mu ne la nga muñ waaye comme moom borom téere bi soo seetlu ci départ bi junju nañu ne lu jullit bi di def rek war na ko amal firnde moo tax moom ci boppam mu commencé jëfe li ni mel mel na ne dañ koo laaj ne ko waaw li nga wax ne ne lu war la ci bépp jullit mu xam boromam ñaareel bi xam yonentam ñetteel bi xam diineem waaye teg ko ci ay dalil yow lan moo ciy sa dalil waaw sa tegtal mu indi aaya bi wa dalilu qawluhu taala bismillahi rrahmani rrahim إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر برب سبحانه وتعالى منه والعصر مانجي جنتي جمانو والعصر مانجي جنتي تاكوسان innal insaana naka nit ñëpp innal insaana naka fàttekat yëpp nit dugg na jinne dugg na ñoom de la fii xusrin ñu ngi ci pertement ah mbokki loolu suñ ko déggee ñun ñëpp ñu war a tiit doomu aadama yëpp nit ñëpp ñu ngi ci pertement kenn ci ñun bëggul nekk ci pertement waaye am ñum ci génnee nag kon ñu déglu melokaan yooyu nga xamante ne ku mu daje ci yow bokkoo ci ñu perte yàlla nu yàlla musal ci pertaange mu ne illa alladina amanu ba mu des ñi yàlla kon gis nga melokaan bi njëkk bi moom mooy al iman wa amilu salihaati ñu jëf-jëf ju baax kon gis nga bi ñu gëmee ngëm comme ni nga xamee al imaanu qawlun bil lisaani wa ictiqaadun bil qalbi wa amalun bil jawaarih ñu ne ngëm yàlla lu nit ki di fas ci xolam la kon iman dugg na di ko jëfe ci ay cëram di ko wax ci làmmiñam kon nag mu ne illa alladina amanu ñi génn ci pertaange googu mooy ñi gëm yàlla wa amilu saalihaati di jëf-jëf ju baax wa tawaasaw bil xaqi di dénkante dëgg mbokk yi lan moo gën a nekk diine eh, dëgg diine yàlla ji ma ne dénkante su fekkee ne lu jaadu la dénkante diine moom mooy numéro un dénkante lii tax yàlla gërëm ñu lool mooy numéro un kon bi nga ne illa alladina amanu kon lan dugg na li ñuy tuddee eh, al ilm ndaxte loo xamul mënoo koo gëm kon nit ki da koo xam ba pare door koo lan gëm wa amilu saalihaati mooy tegtalu li mu waxoon ne wal amalu bihi ñaareel bi wa daawatu ilayhi lan mooy tegtalam wa tawaasaw bil xaq ñuy dénkante dëgg ñeenteel bi mooy nga muñ ci lor yi ci nekk moo tax yàlla teg ci mu ne wa tawaasaw bil lan la teg wa tawaasaw bi sabr kan la ñuy wax muñal ku nekk ci lu neex déedéet mooy ki nga xamante ne dafa nekk ci lan ci lu ko metti moo tax imaamu Shafii rahimahullahu taala bi mu settantelee saar wi gis li saar wi ëmb ci yiw ak tawfiq ak barke ak limu mu ëmb ci ay maanaa moom imaamu shafii mu ne law ma allah yàlla de alqur'aanam gi su ci wàccewul woon xujjatan genn lay illa haadihi suura ludul saar wi wala su wàccewul woon lay ci jaamam yi ludul saar wi la kafatuhum kon saar wi doy leen maanaam liñ ci jublu mooy saar wi doy na pour éduquer nit ñi waaye doy na ngir won nit ñi li war a def waaye saar la woo xamante ne bokku na saar yi gën a làmboo ci li nga xamante ne moom mooy li eh, maanaam war a yar nit ki li war a teg nit ki ci tawfiq kon mbokk yi ñeent yooyu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax nañu fexe xam sunu diine xam diine kat lu jaadu la moo tax yoon sallallahu alayhi wasallam mu ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima sàkku xam-xamu diine farata la ci bépp julit bu góor ak bu ak bu jigéen moo tax ñu ne xam ñaari xaaj la loo xamante ne fardu kifaaya la maanaa say e, faratay jëmm moom farata la ci yow nga xam ko ak li ñu tuddee fardu ayn yooyu nag mooy yi nga xam ne su ko ñenn ñi xamee mu wàcc ña ca des kon lii mooy tey li ñu e, e, li ñu compoon rek ci tàmbalik téere bu ama am solo bu barkel boobu di ñaan yàlla yàlla nu yàlla boole defal tawfiq yàlla nu yàlla boole ci ahlu tawxid وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين